plateforme digitale yëpp ñu bu baax a baax euh, di leen ñaanal jàmm ak salaam comme ni ñu ko gisee nag naqar ak tiis la réew mi yow depuis euh, samedi ki nga xamante ni mooy euh, waajur wu jigéen bu Wally Ballago Seck di maman Diaga yàlla jël ko fële ca France ñuy masaw famille Seck bi yëpp mais particulièrement Wally tey nag ñu seet si koo xamante ni vraiment boo nee Wally rek di nga tudd turam nekk référence aussi ci réew mi moom àndut ak Wally ak showbiz mais dafa ànd ak Wally en tant que frère ak frère muy kenn euh, Kane borom Bonavita moom la ñu seet si ci pour wax la ko c' est pas du tout évident mais jamono jii nii Wally a besoin de voir ses frères te moom il fait partie de ses frères moo tax ñu seet si ko. Euh, masawu ko d' abord ginnaaw bi ñu ko nuyoo bàyyi ko mu nuyoo mbokk internet bi. maa ngi lay ziar naa euh, asalaamaaleykum maa ngi lay delloo ziar bu baax di nuyu waa Dakar Buzz. Mm-hmm. di nuyu waa internet bi yëpp. Mm-hmm. di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mm-hmm. di saare baax mhm. di tuubal yàlla mhm. day yàlla mhm. di santaat yàlla ñuy saar ñëpp dalal ñëpp macha allah euh, grand euh, naqar ak tiis moo dal suñu kaw ñun ñëpp mais particulièrement yéen ñi nga xamante ne vraiment jege ngeen Wally mu nekk nga nekk homme de confiance am euh, d'abord nouvelle bi ban moment nga ko yëg ak bi nga ko yëgee sa première réaction lan la waaw sama première réaction mooy jaaxle rek waaru te santat yàlla ndax ñun ñëpp ci yàlla lañ jóge ci yàlla ñuy dellu mu ne wal bu metti ndax li fi jóge yàggul papa Thione moo fi jóge di papa ay waali taawu yaay waali jóge fi di moomi sekk daani jaaga jóge fi yàlla na fi yam muy naqar bu metti nag bu dal ci kaw famille sekk bi yëpp waaye nag ay jullit lañ dañuy sant yàlla rek ndax yàlla sunu borom bi bi ñu sàkkee dee la ko bind ne dund te bakkan mos dee dund di nga mos dee metti na trop trop trop waaye nag comme jullit lañ dañ sant rek parce que ab jullit lépp loo xam ne yàlla ko def da laa war a neex amuñu droit di bañ a sant dañu sant rek metti na waaye metti bu ànd ak cant la gën a bees lee rek a fi am waaye gën a metti amu fi santar yàlla di massawu famille sekk bi yëpp waale nag yàlla def na ko muy góor gu dëgër waaw ndax vraiment métti metti na waaye heure bu ma ko jotee rek mi ngi sant. mu ngi sant wér. Mm-hmm. waaw mënut ta wax nag instant bi nii parce que boo ko bindee vocal sax dafa lay écrit. Hmm? waaw xolam fees na trop waaye nag mi ngi sant. Mm-hmm. waaw. yow bi nga yëgee nouvelle bi fan la la fekk ak kan moo la ko yëgal. waaw man dama doon nelaw nag. Mm-hmm. ndax comme dama guddee tëj keroog. ma yow gis sama téléphone bi di xar. ma gis appel yu baree bare baree baree baree baree. ma benn xarit bu mujjee woo Ibra mu wax ma ko après moo Aziza mu dëggal ma ko man xam ne nag ndogal li ñëw na suñ borom wàcc nag ndogalam mu metti lool waaye nag sant rek waaw. d'accord euh, bi ngay njëkk a déggante ak Waly yan kàddu ngeen ngeen ngeen déggante ngeen ngeen waxante. waaw Waly bi ñu mujjee déggante veille bi la avant son soxna si wàcc. Hmm. waaw laa ko bind message ne ko nuyul saareel ma maire bi. Hmm. ma yeewu suba nouvelle bi am. Hmm. bi ma ko woowee tamit dama ko dalal ko. ne ko xoolal ci man ñàkk naa waajur wu jigéen nga sant yàlla xool tamit ñi xam ne gis ñu seen waajur wu jigéen ñi nga xam ne seen waajur wu jigéen lekkul seen wërsëg yow am na ñu juddu fekkewuñu seen yaay am na nekk ci dëkk bi yor taraanga xamuñu seen yaay am na ñu ñoo xam ne seen wërsëg seen yaay ñamu ci yow nag santal yàlla ba xam ne magoo ci doomi coon yi waaye nag yàlla defal la tawféex ku ne xam ne ne yow góoru yaay nga waaw maamaa Diaga moom ku ne xam ne moog Waly meloon nañ ñoo xamante ni comme ay morom. Mhm. complicité bi man yàgg nañoo ànd maag Waly ci otoom day egsi rek woote wàcc wàcc wàccal mais wàcc mu jox ko xéwalam ñu àndaat waaw mais nag ma ne ko santal yàlla man mii di wax yow di la dund naa ko métti na nag parce que waajuru jigéen ku ko ñàkk mhm. di ko xam. di ko xam lool moo tax ku am waajuru jigéen da nga ko téye. Mhm. metti na trop ma ne ko xoolal ci man man mi ñàkk waajuru jigéen. sama yaay meloon nag mel noo xamante ni maag moom ni nga mel sa yàlla mel ak moom xaritoo benn complice déggoo moom te jaaga noonu la meloon ak waal yi hmm. nga xëy mu dem doo gisati boo ko gisee yaa ko fekki du lu yomb lu naqaree géré la hmm. waaye nag la ma waxoon laay waxaat rek delloo mu muñu rek mu ne ma jërëjëf grand ok merci mon frère mais dama koy sax ñeetantal chaque jour maa ngi koy envoyé message di ko defal mais du nit mën a defal nit parce que man dama ko dund. dund naa trois mois tar yoo xamante ni kaw laa dem toog. Hmm. Kaolack bàyyi lépp bëggatuma dara sama àdduna. ndax ni sama waajur jigéen demee mu bette lool waaye sant rek. Hmm. waaw sant daal lañuy ñuy def delloowaat ci suñu borom sant rek. waaw metti na trop nag waaye ñu ngi gars yi ñu koy defal ñu ngi koy masawu coono. Hmm. yow mu muñ. muñ lay def parce que allah kulli xel dina muñ. waaw waaye ñàkk sa waajuru góor ñàkk sa taawu yaay teg sa yaay. métti na. dama dégg métti na ci moom metti na ci famille Seck bépp métti na ci ay rakam. Mm. waaye nag lu ñu mën a def loolu rek santat yàlla xam ne yàlla moom moom ay jaamam. Mm. lu ko neex lay def. suñu borom moo ñu sàkk sàkk jaaga sàkk waali sàkk ñu. Mm. bu ko neexoon tey sama émission bi ak yow tey du àgg. te kenn du ñu man dara. ñi ngi ñaan yàlla jaaga fu mu jëm. yàlla xare ko àjjana. yàlla bu ko cat jiitu. ndax soxna su ragal yàlla la woon. soxna su sell la woon ndax soxna soo xamante ni sa borom ko daa wàcc nga dem ba ca moom barabam nga jënd ci côté ne fii laa bëgg a wàcce sóoru na bis bi tey bis bi nag ku ko suuru rek ku ko suurul rek lay jaaxal waaye ku ko suuru la jaaxal yombul nga nekk soxna di xëy fajar dem ci morgo yi di di di def foofu yërmaande yombul kon soxna si xamoon na ne dee rek ca la jëm moom nag waajaloon na bësam kon nag sama gars yi may wax na ku ne waajal sa bopp tey jéggulu tey tuub tey saraxe tey balonte àq àdduna bi jeex na hmm. jeex na ba pare jigéen ñi xam ne yàlla leen boole seen ay boroom kër ñu sàmmanteeg seen ay wareef hmm. jaaga de sàmmante woon na wareef ak coon sekk bañ na ko ba coon làqoo daf ne bëggatul boroom kër dama hmm. dégg tey nag fekk na coon kon jaaga ku ko yeewoon tey am na li ko gënal mooy borom këram jiitu mu topp ci ginnaawam ñun nag ñoo xamul waaye ku ko fëggoon tey day santaat yàlla xam ne moom dem na ca ndigalu suñu borom ba soxna yi daal li ma leen dénk mooy ku ci yor waajur na ko téye ku ci yor borom kër na ko téye xam ne yàlla yàlla li mu wax dana ko def de ndogal bii ci ñëpp lay wàcc dëgg la de jaamu yàlla nañuy tuub nañuy wax lu baax nañuy sarxe nañuy baalante àq tey bañ a ay ayib ku amal sa moroom ay ayib na ko génnee Serigne Saliou nag nee na mm-hmm. suñu borom mm-hmm. bu génnee say mbir dalaa bëgg dimbalee waaye ab jaam bu génne sa mbir dala bëgg a weer kon nañ bàyyi werante tey jaamu yàlla yàlla indiwuñu pour ñu fode indiwuñu pour ñu caaxaan nañ delloo xel yi lii nii ku mu doy dara doo doy a chaque fois ñu man la preuve yàlla nag bu lay jëlee nit dalay bëgg a jëlee nit pour wane ne lii ma def kii mën naa la ko def yow pour nga tuub profito dikkaat dikkaat dikkaat ci ndigalam yi mm-hmm. waaw ñu ngi sant bu baax nag di saare di masawu sama waa ji mm-hmm. maa lay bu baax. Mm, surtout waaw ñu ngi sa côté. Mm-hmm. guddi ak bëccëg di la dëfal. Mm-hmm. waaw yaag say rak yëpp yu góor ak yu jigéen. Mm-hmm. metti na trop trop trop sant rek. Euh, li ñuy wax grand Samba yow référence nga ci réew mi mais surtout ci Wally parce que fu mu toog dina wane affection envers yow ak considération bi mu am ci yow. jamono ji nga xamante ne ñàkk na waajuram bu jigéen ñàkk waajuram bu góor ban taxawaay nga war a taxawaat sa diggante ak Wally surtout ci li nga xamante ne mooy liggéey bi muy def da nga amoon ci rek waaye yokk sama taxawaay rek parce que moom day rakk ju ma respecté ruusuma trop wala du sigi sa xool ma bañ ko su ma demee këram sax bu ma xalee di tooñ ñoom Njóogu Mbaay ak ñoom Tumaane sama rakk yi di ma tooñ dañ ko bàyyi leen grand bi hmm. waaye dañuy taxawaat ci wetam rek gën koo dooleel hmm. ndax ànd ñëw moom ànd àndu bii rek pour ànd nii hmm. parce que day suñu rakk am fu ñu féetee di ñu diglu lu ñu ko wax mu xam li ñu ko ci wax te muy njariñ kase ndax ñu dañu bëgg ñu àndal rek ñu lay wax ci jariñ nit nag Hmm. doo ko jariñoo rek da koy jariñ jariñ nag du xaalis jariñ du ay koppar jariñ du ay objet hmm. wax ju baax te yàlla rek tax hmm. jariñ la te ñun loolu la ñu yaree ku ñu àndal rek dañu ànd ak yow ci wax la lu baax taxaw sa wet boo amee naqar ñu bokk ak yow boo amee bànneex ñu bokk ak yow parce que waa lim ñu juy ba ànd ak moom moom mënu ko juy parce que moom xale la ñu mag lañ lim buñ bàyyee buñ wàññee suñu âge fekk si ko rek peut-être lim ñu wan la parce que ñun ànd ñoo kenn ci ci am koom dañu ànd nit te yàlla tax parce que yàlla dimbal nañu yàlla teral nañu mm-hmm. waaye day sama rakk boo xamante nii bu ñu xamantee ba tey mi ngi rafet mm-hmm. sa guddi daanaka temps yi sa guddi ñooy nekk guddi gu ne ñooy nekk ba quatre heures matin mu nekk foofu di play ak xale yi ndax rek pour soulager wu dëgg la mais nag dañuy gën a taxawaay ci wetam rek di yokk suñu cofeel ci moom mm-hmm. yokk suñu doole ci moom yokk suñu yërmaane ci moom ndax jamono ji nag waale moom ku jërë yërëm la la ku jara yërëm la ku jara taxawu la ku jara jàppale la mhm. parce que waajur dafa fort mu ñàkk ci ñett day metti lool waaw euh, ñuy ñuy wax ni Wally fi ne nii amatul moral day bàyyi woy euh, qu'est-ce que tu as répondu loolu dañuy wax rek parce que xam nga Wally day liggéey mhm. xam nga wàcc moom mhm. yaa ma dégg ko def rek da ngay liggéey parce que dañuy liggéey ak jaamu yàlla Wally ci liggéeyam la nekk lan moo tax mu war a bàyyi liggéey bi muy def ngir waajur kon du sant yàlla ndax yàlla moom bu ko neexoon yàlla yu yóbbaale waale suba wallaay mais lan moo tax mu war a bàyyi liggéeyam bi xamante ni moom la judd fekk bàyyam di ko def fekk yaayam ànd ceeg bàyyam waale kee dañ ko war a wax gën mu gën a wan a way ndax fu toll li mu ñàkk yaa dégg ci loolu judd waaye nag danaan ko rek mu gën a sax ci lu baax tey tuub tey jégalu tey jaamu yàlla waaye du bàyyi liggéey bi muy liggéey ndax loolu day liggéey koy bàyyi loo liggéeyam après lay dundee lan lay dundee mm-hmm. lan lay mën a yor ay rakam yi nga xamante ni moom la ko yaayam bàyyi ak baayam waal yi mooy doole famille bi Waly mooy coom mooy jaaga tey mooy ñëpp parce que ñoom Mame Seck ak Aline Seck ak xale yi. moom lañ yaakaar. sukkandiku ko ci kenn. bu bàyyi liggéeyam bi tey. ñooñu lu ñu dundee. loolu ñu jaaxal kon day war coom sax. parce que da ko yàlla da ko yóbbu yóbbu yow yaayam. yóbbu baayam. pour en ñu mën a waale mën a taxaw taxawaayu baay ak ndey. tey famille bi yëpp mooy seen baay mooy seen ndey. su croiser les bras liggéeyu léegi lan lay la njabootam. loolu dañuy wax rek xam naa dañoo xër rek. dëgg la waaw waaw mais day liggéey. jërëjëf jërëjëf grand bi ñu ngi jéggalu nag si sa temps bi ñu jël parce que ku la si day liggéey bu métti xar-xar yi métti lañ la fekk te ku la xam aussi xam la ci ci ci une silence mortuaire comme ni ñu koy waxee mais fexe nga ñoo may quelque si sa temps wax si li nga xamante ni moom mooy témoignage bu am solo bi ngi lay jaajëfal di la bàyyi nga tàggatoo mbokk internet ñu doon seet. waaw maa leen di bu baax a baax. Mm-hmm. di ngeen a def li na war rek ma def li ma war. Mm-hmm. ndax bu yaayu waali làqoo Mm-hmm. ngeen di xool image yi jógee ci waal yi. Mm-hmm. pour ñu mën a témoigner. Mm-hmm. wax li ñu xam. ngeen ngeen ngeen ngeen ñëw ci man li ma xam laay wax rek. te li may wax kenn du ko dindi. waaw man daal li may wax ñëpp. nañ gën a baalante àq. tey tey tuub te xam ne àdduna jeex na. yàllaa ngi wane boppam chaque jour. nit nag moo dëgër bopp. may xam ne sama gars yi. man ne ku ma mayal àq na ma baal àq. ndax àdduna. àdduna jeex na. ñun nag dañoo jàpp ne ñu ngi dund ba tey waaye dee na bu yàgg heure boo gis di ko yeewoo rek gis lu la war a mën a tubloo mhm. may saare ñëpp di wax lii am nii tey mhm. yàlla na fi gëj mhm. soxna si làqu di soxna Kiné Diouf yàlla na ko yàlla xare aljana li mu doon ànd ak coon sekk yàlla bu mu ko rëccu yàlla na ko Seydina Mohamed mi mu bëggoon teeru teral ko yóbbu ko àjjana njaboot gi mu fi bàyyi muy xale yu jigéen ñoom bintoog ñooñu ñu ëpp seen yaay aw fan góor ñi fi bàyyi tamit ñu ëpp seen bàyyi aw fan di jégalu ñëpp tey baal ñëpp ak tey baalu ñëpp ak mm-hmm. wasalaam jërëjëf mbokk internet yi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, di leen masawuwaat rek parce que metti na on fait le travail difficilement parce que ku ko natt sa bopp rek affaire bi di nga di nga xam métit bi fan la toll mais ñu ngi jéem a góorgóorlu as lu ñu mën parce que tamit nit bu génnee àddina lu ñu mën rek mooy seede yu baax yi nga xamante ni euh, nit ñi dañ koy seede mën na ko gunge ci bàmmeelam malaaka yërmande bi teeru ko loolu moo tax ñu suy soroon suñu bopp di ci rey suñu bopp ñu ngi euh, jégalu bu fekkee wax nañ ci lu dëng di leen sant bu baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous très bientôt ak beneen invité merci beaucoup